vous pas non, attendez, la sécurité de l'État. Au contraire, au contraire, j'ai sauvé l'État. Si je n'avais pas, de, si je n'avais pas fait ce que j'avais fait, on, on, parce qu'il n'y avait plus d'État. Les gens, la caserne Samba Diallo, c'était la première fois que les gens étaient presque arrivés au mur. Ce jour-là, même le général est sorti au maintien de l'ordre. Ce n'est jamais arrivé. Si les gens laissaient faire, ah, que Kouné, c'est-à-dire jour boobu même général Tine génn loolu xam nga boo loolu cest à xam nga nit ñi dañoo demoon ba benn instant boo xam ne ñoom dañoo jàpp ne même gendarmes yi ils sont contre le peuple est-ce que vous avez compris donc il fallait dire aux gens arrêtez lii jaru ko est-ce que vous avez compris cest am na mbir fu muy toll da ngay xam ne intérêt général moo gën intérêt ay mais mais loolu noonu li ko indi c'est c'est une mauvaise gestion euh, du dossier responsabilité yi hmm. bari na ah. euh, souvent en parlant de ce dossier là day am ñu ne euh, capitaine Touré. Mm-hmm. am na nu mu doon defee. Mm-hmm. li am nii yëpp du am. ok yow il aurait pu contribuer il aurait pu contribuer. mais expliquer à élucider. waaw euh, cette cette cette cette mais madame booy def enquête xam nga man nekkuma chef de l'unité moi je suis le directeur d'enquête le responsable de l'enquête yow si on me met la pression ñu ne ma parel parel ñu yónni mbir mi dugg na fi jaar na fi yow yaakaar nga ne man mën naa si def dara mënuma si def dara xam nga ce qu'il faut madame dire ce qu'il faut expliquer aux Sénégalais c'est de trouver des solutions pour libérer la justice xam nga un officier un capitaine de gendarmerie qui est dans une euh, unité qui est une section de recherche qui a un chef lui qui a un chef l'autre qui a un chef ñoom ñëpp seen chef mooy l président de la République président boo xam ne c'est un il a des intérêts politiques est-ce que vous avez nga justice gis nga si on ne se bat pas pour avoir une justice indépendante aujourd'hui c'est moi demain ce sera vous ou ce sera mais, votre mais, enfant mais, mais mais non non bàyyi bàyyi ma expliquer la mhm. bàyyi ma expliquer la xam nga nous on ne trouve pas la solution qu'est-ce qu'on veut c'est régler des problèmes politiques c'est-à-dire il faut trouver un responsable directement xam nga ce problème là il a créé un souci boo xam ne tey une bombe à retardement boo xam ne les gens pensent que c'est fini mais ça va leur suivre toute la vie xam nga peut-être que je suis jeune y en qui pensent que peut-être am nga mbirum yàlla ak mbirum nit du benn am na yoo xam ne gis nga boo mënul détecter mbirum yàlla ak mbirum nit c'est parce que tu ne connais pas la vie. mais mais mais, mais, mais sauf que sauf yeah. que Touré. Euh, le président de la République. waaw boo président de la République. waaw il ne défend pas des intérêts. politique le président de la République. madame ça c'est votre avis xaaral hmm. le président représentant de la nation c'est le chef de l'État. normalement euh, c'est le chef suprême. Hmm, euh, des armées. si c'est le chef suprême des armées des comment est-ce possible que le président de la République qui est le chef suprême des armées je suis un officier de gendarmerie euh, je suis jugé par mes pairs. ils me disent que mais vous pas... êtes pour quel motif. non je, nga madame. c'est pas pour ne, quel motif n'occultons pas le, non, le, pour, motif ouais, le motif. pour lequel pour, vous êtes jugé le motif pour lequel je suis jugé. Ah. c'est parce que je suis sorti j'ai fait des déclarations. que je ne devrais pas est non c'était pas mon devoir mais xam nga madame. Ah. vous savez pourquoi. je suis officier xam nga loolu la wax xam nga euh, lu ma la doon expliquer au départ loolu xam nga xam nga yéen loo leen di xalaat comme man officier de gendarmerie laa kese man li ma war a def. c'est gérer mon poste. c'est-à-dire même si le pays non déglu ma si le pays brûle man naa croiser les bras. non ma non c'est ça que vous parce que yow li ngay raisonner c'est de dire c'est quoi mon devoir maintenant vous pour vous c'est quoi mon devoir. expliquez-moi c'est quoi mon devoir. Hmm. vous êtes engagé sous les drapeaux vous devez. Hmm. Euh, loyauté et engagement. à l'armée xaar xaar à l'armée voilà mais expliquez-moi vous êtes dans un dans un non man je ne je n'ai pas la prétention de déterminer lan mooy ce devoir si vous avez la vous êtes dans un service commandé avec des des des règles oui Euh, nga am problème ñu ne la dañ la jàpp nga nekk de connivence. kan euh, moo wax ne dañ ma jàpp. ñoom kan ma la wax est-ce que vous avez un document officiel. non non attendez est que vous avez un document officiel. qui décrit non non attendez. parce que pourquoi vous êtes suivi non non ce que vous êtes en train de mais pourquoi vous étiez suivi suivi. madame euh, il faut retirer vos propos vous ne pouvez pas dire que a il y a un document. qui approuve. non non si vous, vous me terminer. Non, vous, vous argumentaire vous devez le retirer. Euh, parce que c'est de la diffamation. non c'est pas de la diffamation si c'est de la je diffamation. ne fais pas d'affirmation non vous ne pouvez pas fait d'affirmation ma euh, dañ la doon da nga nekk ci enquête. Mhm. Euh, ñoom ñu ne. Mhm. ñoom euh, ñu ne kan moo ko wax. la gendarmerie ñu ne. kan moo ko wax da nga entrer non xaar c'est pas important. non très important madame non parce que vous êtes non da nga en contact. waxal kan moo ko wax non non non madame. c'est très <laughs> important madame. Ah, may ma ma terminer non dites qui l'a dit. ma ma terminer le seul communiqué que la gendarmerie a fait. Ah. c'est de dire que le capitaine Touré est connu. pour être un bon officier jusqu'aujourd'hui. Ah. li li nekk ci biir ci biir ci biir mooy. waaw lan moo nekk dañoo am ay suspicion ci sa impartialité waaw may ma rek. waaw ma ma terminer euh, ci sa impartialité. Mm-hmm. ñu commencé. Mm-hmm. di la topp. Mm-hmm. plus tard ils disent que. da nga entrer en contact avec Ousmane Sonko. qui l'a dit madame et eh, yow vous l'avez reconnu mais c'était pour les nga ne c'était pour les besoins. de de de l'enquête. mu am une procédure bu la toucher au sein de la gendarmerie. nga génn nga wax te wax bi du woon sa cër et quelque part sax madame vous avez reconnu que euh, euh, xëy na waroo woon waroo woon wax léegi dans ce dans cette situation la vous auriez été chef d'unité vous auriez été chef d'escadron mu am un élément bu def loolu yow doo jël des mesures disciplinaires pour sanctionner ko tegaat ko ci yoon si moi j'ai été j'aurais été euh, chef de l'unité mm. chef d'escadron j'aurais pris mon temps pour faire l'enquête afin de voir ce qui s'est réellement passé. Parce que quand une enquête engage la sécurité nationale il faut prendre le temps qu'il faut. Ah, il ah, faut oh pas ac c'est-à-dire bu enquête waree dugal si waree waree mettre en jeu la sécurité nationale da ngeen war a jël temps ngeen def ko PV boobu bu fuite boo ko gisee da ngay xam ne PV bi dañ ko accéléré war defuñu ko ni ko war a defee. c'est ça c'est là ça la question xam nga problème bu mu amee comme ni ma la wax. bul xool xool regarder du c'est-à-dire xoolal fu problème bi jóge ba mu ñëw man si j'étais aujourd'hui chef d'escadron peut-être que j'aurais été relevé le lendemain parce que man eh, bu ma defoon enquête bi comme nu ma doon defee yeneen enquêtes yi ñu bàyyi ma ba ma pare nee naa la man j'ai en trois ans yi ma def SR amul PV bu fa génn boo xam ne man jaarul si man corrigé wu ma ko wala liiruma ko parce que j'avais l'entière confiance de mon chef c'est-à-dire mënuñu la féliciter il y a de cela deux mois un mois après ñu ne la tuer le diable est-ce que vous avez compris moi ce que je veux que vous compreniez c'est que on était une situation boo xam ne il fallait trouver un responsable te responsable c'était le plus faible du maillon c'est-à-dire ku gën a faible ci maillon bi kooku la woon donc pour moi c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes gis nga problème bu amee dañ koy régle comme kilifa c'est-à-dire dañ koy régler comme cest euh, à dañ koy régler régler kilifa c'est-à-dire xool on la situation kenn war ci kenn bañ ci gaañu est-ce que vous avez compris c'est-à-dire nous on raisonne de telle sorte c'est-à-dire dañuy jàppee opposants yi comme ay ay ay ay ennemis non non non du pas non pour man nekkaguloo opposant doo opposant foofu man du ma opposant là là on parle on parle de l'officier de gendarmerie c'est ça c'est de l'officier de gendarmerie xam nga ah. yow lan mooy sa problème c'est que da nga jàpp ne comme c'est un opposant qui était en jeu et que moi ma sortie peut-être non man j'ai non non non c'est ça non non c'est loolu la parce que vous xam nga ñun lu ñu sonal c'est que dañoo yaakaar ne opposant c'est un ennemi alors que ce pas un ennemi l'État comme je vous ai dit c'est vous c'est moi gis nga opposant politique boobu il contribue à l'impôt donc c'est un Sénégalais comme vous comme moi donc il faut pas Euh, c'est-à-dire personnaliser le débat. non on n'en est pas a n'en est pas à à madame xam nga wax. non xam nga lan bëgg lan laa bëgg ñu xool ba pare. Mhm. c'est-à-dire le devoir. du du militaire parce que ñoom dañoo ne pour des manquements au aux, aux devoirs généraux du militaire. vous auriez été chef d'escadron dans ce genre de situation quand il y a un nombre glio euh, ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne euh, mooy le concerné dinañ la écarter. si j'étais chef d'escadron dinañ la écarter mbaa ñu yóbbu la mbaa ñu def la si j'étais le chef de l'unité ah. ou si j'étais le haut commandant de la gendarmerie ah. ou même une responsabilité plus importante que celle que j'avais on serait jamais dinañ la écarter mbaa ñu mettre la en arrêt de rigueur en attendant ñu continuer li nga xam ne moom mooy mais vous ne leur avez pas laissé le temps vous avez pris la parole et puis vous avez disparu gars yi xamuñu fan nga nekk si je n'avais pas pris la parole si je n'avais pas pris la parole mes enfants n'allaient pas grandir